campagne de décor bien parce que boo xoolee même pays africain en euh, que jeux africains ça coûte beaucoup d'argent aux États ah, boo c'est état bi mooy financé presque yëpp mm-hmm. euh, te rapporté wul dara en fait aux athlètes parce que li ñu ciy gagné aussi li leen seen état di jox la kon problème financier posé wu na parce que amuñu ko ko financé amuñu ko def moyen problème mu existence euh, stratégique comme sax posé wu na parce que pays yi ko créé woon comme ni mu ko waxee ak pays yi waroon mën a tax niveau bi relevé am nañ yeneen préoccupation léegi yoo xam ne du jeu français yi ñoom ñoo moom seen français ñoom ñoo njëkk rey français. Mhm. léegi boo demee Paris yi rencontre sax anglais la ñuy wax waxatuñu français ñun ñoo pays africain francophone ñoo dese français. tubaab yi génn nañ ci français bu yàgg génn dee nañ ci. <laughs> ñoom ñi ko moom ñoom ñi génn nañ ci même seen doom yi bu ñu leen jàngal anglais lañ leen di jàngal. bu ñuy dem di defi ay stage di jàng leneen di ubbeeku ci leneen Chine la ñuy dem wala tey boo demee France am na ay université am chinois rek jàngale. Mm. donc ñoom ñoo ngi wut yeneen bunt ñu ñu bàyyi ñu ci biir ñu continuer rey nous on est là toujours on est analphabète on est des on est des analphabètes du monde nous les francophones balaa nga xam ko nga dem AIBD dugg avion bu décollé ba commencé traverser asamaan si di jubal Europe wala Asie ñu fàtte ne français am na ci monde bi anglais la ñuy wax donc ñoom dayoo bi jeu francophonie wala mayuñ ko ko mhm. et finalement le résultat c'est que pays africain mooy organisé ba deux deux mille dix sept Côte d'Ivoire moo organisé woon Sénégal wax nga ko ñoo ngi yóbbu cent soixante cinq athlètes. Mm-hmm. ci Jeux yi ñu jëm nii. parce ñun dañoo gëm francophonie ba mu ëpp comparé aux autres pays mais Côte d'Ivoire moo organisé woon 2017 délégation cinquante personnes la ñu yóbbu. Mm-hmm. vingt cinq artistes vingt cinq euh, euh, sportifs gis nga différence bi. Mm-hmm. yeneen pays yi di ñëw yëpp pays africains yu bëri déjà pays africain francophone yu bëri demuñu. tax ba ñu bëri ñu désister finalement donc GIE du am niveau bi maanaam ba pare période bi ñu ko teg tey Sénégal moo ngi préparé ba afro basket féminin. oui pays africains yi di jouer afro basket yëpp seen meilleur basketteurs yi duñ dem. en général ay jeunes la ñuy jël boo jëlee tournoi football bi ay U20 fay yóbbu. Mhm. parce que choix la bañ a jël équipe olympique mais jël ay équipe yoo ay boy yu am vingt ans Sénégal am nañu problème pour mobiliser suñu équipe bu U20 bi joué woon Coupe d'Afrique bi. ay U17 la Malick Daaf mujj xëcc pour renforcer groupe am parce que fi ñu placé compétition bi tey tombeek reprise championnat européen yi joueurs yi du jouer extérieur yëpp mënoo ci am kenn déjà joueurs yi di jouer fii ils sont en fin de saison le moment est mal choisi. Justement. je pense tend à disparaître. Ah. tôt ou tard c'est des jeux qu'on qu'on parce que boo demee ba amul amay compétition boo xam ne amul pays bu ko accueillir. Mhm. tey ñëpp a ñu xëccoo organiser coupe du monde football coupe du monde football ñëpp a ko bëgg a mhm. ci ñi am doole en tout cas ñi organiser wu ku amul doole organiser wu kese ngay wut koo associé prochaine coupe du monde ça se déroule dans trois pays. Mhm. États-Unis kenn mënul wax wala Canada amuñu moyen pour organiser ñoom kese coupe du monde mais mënatuñ ko. Mhm. parce que li mu laaj ak nombre équipe yi ci joué il faut ñu mutualiser ay doole ñetti pays Mexique États-Unis Canada coupe du monde bi ci topp ñi ko bëgg a pour organiser ñoo ngi wax Portugal Espagne Maroc. ñoo ngi Arabie Saoudite Grèce Égypte donc dafa dem ba benn moment moyens yi compétition internationale laaj benn réew kese. mënu ko mënatu ko àttanatu ko. Mm. parce que joueurs athlètes yi dañu toll niveau boo xam ne. Mm-hmm. condition nga leen di teg. Mm-hmm. public bi di déplacé wu bëri bëri boo xam ne boo gisee ñii ñi nekkoon ci coupe du monde Qatar gis nañ condition li Qatar am ci doole yëpp il fale mu augmenter capacité yi mm-hmm. pour héberger ñi war a ñëw yëpp. donc boo jëlee tey pays africain bëgg dix mille ou cinq mille personnes ñëwandoo fa d'un seul coup day metti ci ñoom ci pays africain parce que amuñu moyens financiers yi amuñu condition d'accueil yi tax ñu mën a recevoir nit ñi ci conditions yu baax yi ñu war a leen recevoir ba pare comme état yi tamit ful lu ñu jeux africains bu baax état yi gën a mag en tout ñi gën a bëri doole finalement dañuy dem vers la mort de ces la